ci machan laaj day tempéré day defar day wax wax ju baax day wax wax ju li daal amet kenn su ko dégg mu wax wax ju ñaaw franchement parlé donc euh, day defar et puis bërki démb gis nañ ko mu dem soirée si di jóob donc loolu yëpp ci defar donc tey tey nag xaw nañu jaaxle quand même ci euh, Ameth Thiou voilà loolu moom dëgg la nit daal nit euh, daal day rafetal man mii de léeg-léeg ma gis Wally Seck rek gaa yi daw soobu ko damay arrière ndànk xam ni ci faramaareen 1 yi laa du 2 xam sama bopp. alors c'est bon c'est ah. <laughs> ah. léegi léegi léegi on va parler de le cas Idrissa Seck ak ki nga xamante ne bii mooy Macky Sall Idrissa mi doon mi ñuy wax ne dafa ndogoo kër Macky dem xëddee kër Ousmane Sonko. ci weeru koor bi <laughs> kookoo mën a dëkk ci dëkk bi. <laughs> donc kooku kooku nag franchement parler xam nga. loolu la def et puis euh, il a expliqué clairement quand même donc ñu bëri dañ ci doon wax dañu ci doon wax rek te amuñu luñ ci leer mais jour Korité confirmé nañu quand loolu moom Idrissa Seck ne kër Macky la ndogoo <laughs> xëdde kër Ousmane. ndeysaan waaw euh, parce que itam moo dem jiite Macky Sall julli noonu la ko expliqué. parce que daf ne Macky Macky Macky moo moo ko wax sax ne ko su ma la jiitee su ma juumee su ma juumee doo ma mën a. Euh, su ma juumee donc bu fekk parce que Macky daf koo bëgg a xamal ne ko Idy yow yaa ma gën a mën alxuraan donc ñun ñaar euh, bu fekkee ne yow yaay jiite su ma juumee donc doo doo ma mën a euh, doo ma mën a corriger genre donc il faut que yow nga jiite donc moom nag mu ci noonu la bàyyee Macky Sall mu jiite. mu jiite waaw parce que bu Macky juumee au cas où juumee mu mën koo war a parce que nee na. <laughs> <laughs> loolu daf ko daloon ci Ablaye Wade. sama ndey <laughs> Ablaye Wade ñëw ta tari ayatul kursi boo xam ne xam nga doy na waa donc moo tax nee na wax na ba wax saar yi nga xamante ne bii quand moom la Macky euh, tari donc. Euh, <laughs> ci julli gi wax na ne mari Macky falaxi la tari mm. ak naas yi ci julli gi bi mu paree idi di ko waat ci falaxi boobu ak ci naas yi. di ko expliquer quand yu bari yoo xamante ne bii mais on a vu que kuy génn ci Macky la ba pare du meroo ak Macky parce que wax na ak Macky ne ko man de dinaa et pourtant nee na tàggu na Macky ne ko tey de dinaa dem ci Ousmane Sonko Macky ne ko loo fay def mu ne ko li ma la li ma fay def nag duma la ko wax mais quand même dinaa dem ci Ousmane Sonko et puis bu ma fa demee la ma fay def su ma ko defee ba pare bu fekkee ne neex na la filaale fale laayal xam nga su fekkee ni neexul itam nga dàq ma comme yow yaa yor décret bi nga xamante ne bii ci la ñuy dàqee nit. donc ci noonu nag ci la jógee foofu dem fekk ji Ousmane Sonko dem ñu julleendoo fajar moom Ousmane Sonko. julleendoo fajar xëdd fa <laughs> ah Idi de magum diine la. mën na ci bii boor mën na ci bee boor. billaahi wallaahi dëgg yàlla tëddee na njaaxaanaay. nag Seck loolu la def Idrissa Seck ba pare donc vraiment wax waxam ju rafet ba génn ci. quand même mm-hmm. nee na toute façon. Euh, li mu waxante Ousmane Sonko donc et puis wax quoi ne Macky Sall liggéey na mais dafa am lu des loo xamante ne bi aussi il faut mu nekk ci wax dëgg yàlla candidature am bi moom aussi fësal na ko déclaré na ko li ñu jaaxal rek mooy ba léegi Macky dàqagul Idi et puis lan lay xaar nit boo xamante ne bi nee na moom day ber daaray boppam donc peut-être que Macky da dafay bañ dàqu ko nit ñi am confirmation ne Macky day def troisième mandat mm-hmm. mais quand munoo nit ki ne dafa ber parti boppam déclarer candidature donc te tàggoogu la ba léegi après nga bàyyi ko ci parti bi ba léegi muy doxal li nga xamante ni mooy conseil économique et social. li wete wër lool mooy loolu la ñu fa euh, jëlee keroog ci Idrissa Seck quand même wax na waxtaan bi nga xamante ne bi tamit seq na ko Ousmane Sonko mu nekk mbir mu doy waar loo xamante ne bi mën nañu wax ne quand même Idi dëgg yàlla ku mën a dëkk ci réew mi. waa jimb euh, <laughs> Idi dafa mën a dëkk dëkk ci réew mi rek wax dëgg yàlla. magum magum magum diine la rek. comme que moom moo nekk ci réew mi di ànd ak Macky te ñaawuloo moom benn yoon mu dem kër mag Macky ndogoo fa dem kër Idi xëddee fa nag kon moom dafay taxawaay taxawaay boo xam ne xëy na taxawaay jàmm jàmm rek lay taxaw taxawaay njaaxaanaay rek kon nag yaakaar naa ne war naa mën a dox jàmm. waaw kon euh, kon moom euh, Bamba mi ngi ñëw. dem ci ndogoo ji kër kër Macky di ñëw di xëddee kër Idi kon moo lay wo kër kii nu mu tëdd sax di mooy Ousmane Sonko kon moo lay wane ne kon jàmm lay dox ci diggante bi kon kooku taxawul pour ñaawoo ak Macky taxawul pour ñaawoo ak Ousmane Sonko moo kon moom dafa taxaw ci dëgg bi njaaxaanaay la dafa wala muy def bii gañ bii perte rek day làmbaaturu xamagul fu muy féete man loolu rek laa ci gis ndax xam nga ne loolu moom bu amee rek yéeme na dëgg yàlla Idi moom yàlla na ko yàlla defal jàmm rek kenn xamagul fu mu féete <laughs> kon ko ñoom ñaar ñëpp mu ngi seen diggante kay. dimbali lan mooy sa xalaat ci loolu waa xam nga tey li may wax ci sa Seck du neex nag hmm. xoola képp kuy xale war nga def jàngat si ci sa Seck hmm. waaw Idi fu mu nii boo ko bindoon livre jàngal ko sa doom yaa ngi dégg daanaka yow sa doom xoola dina yeewu ci àddina est-ce que xam nga loolu hmm. sa Seck dafa ànd ak kuñ naan Ablaye wàdd du noonu sa Seck sonn ci Ablaye wadd ba barke bi wuy si ko. parce que benn bis moo musa nettali Ablaye Wade dañ ko dugal kaso. moom moo doon indi añ. bi muy indi añ Ablaye Wade bindal ko benn note ne ko dama bëgg nga dem si entreprise nangam. pour nga liggéey yaa ngi dégg. Euh, nga wut liggéey pour dundal sa famille. parce que man gëw ma ni damay dinaa génnaat nee na mu jooy ne ko man yow laa xam. moo ko nettali de. mu ne yow laa xam kon Ablaye Wade nag kon demal kër ga tey sagam moo mën a toog Ablaye Wade di papaam yaa ngi dégg mu ne da mu nettali ba nettali ni Ablaye Wade daf ko mësa dal ci moom mu tari dara mu juum xanaa am la mu nit bu taree dara juum secret la am nga droit nga nekk ci ginnaaw ne ko subhanallah wa àggale affaire bi mu àgg nee mais na fa yam du am njàng loolu du am njàng ba pare Idrissa Seck yéen da ngeen comprendre bu njëkk ba da daan tari laaya yi rek ngeen daanu ñii di jooy fii ñii di kii moom di wax ko ni ko ah, léegi alxuraan bi ñu koy gañe gone Tuubaa yi wax ma at bi dimbali ma ci waay nag ngir yàlla waay bàyyi lay def. concours coranique. waaw waaw wax ma ñaata at a koy gañe. ay 10 ans rek 10 ans waxal ma ko Idrissa. alxuraan safeetul léegi pour yow nga yor ko di ko manigancé nit ñi wala nga rëy rëylu ba jàpp ni yow yaay alxuraan nit booy tuubaay 10 ans ñu am 6 ans ñoo koy jàngale léegi ba pare ñooñu li ñu xam xamul xaaj bi yaa ngi dégg lu ma bëgg mooy ci contexte politique lañ nekk ñun dañoo bëgg idi mu loqati ko ci alxuraan bi mu nekk mu génn ni maa ngi nii ñun ñu gis ko yaa ngi dégg ma wax la benn affaire tey Idrissa Seck moo nekkoon patron Macky Sall mu dem ba Macky Sall nekk patron waxa rek ah, mais ban def ban problème la def ba Macky Sall nekk patron Idrissa Seck élection yii passé moom moo jiitu Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo daan paas di dem kër Idi déedéet déedéet élection yii passé bi mu jiitee opposition bi. ñoom sonk ñoo doon paas di dem di xaar Idi. muy nelaw ak a yeewu ndékki defaru xam nga gars ne ko xaar leen tuuti seen papa mu yeew mu yeewu taraxlaayu def defam génn léegi bu demee moom ba dem si moom muy dem di fekk Ousmane sonk ñaari point yooyu la war a njëkk a lijjanti bala moo lijjanti réew mi ko xam ne sa booy la woon Ousmane Sonko kee sa kee tamit yaa nekkoon patron nga bàyyi sa kër tëj ko dem ndog ji foofu yaa ngi dégg dem reeree ji fële ñooñu nga nga xam ko ak xamoo ko ëpp nañ la barke parce que xam nga lu tax yow nee nga moom moo ñu njëkk a wan ni jàmmi réew mi nekkatul ci loxoom ci loxo Macky Sall la nekk ak loxo ak loxo. Ousmane Sonko mais ma wax la dara nag Ousmane Sonko jàmmi mi nekkul si moom jàmmi réew mi nekkul si Macky Sall. Hmm. ma wax la loolu jàmmi réew mi est-ce que xam nga fan la nekk. ci ñun population bii gis ñun ñooy def pënd bu jóg rek ñu jóg ànd ak pënd bi te loolu da loolu dafa mën a ñàkk xam nga lan lañ war a def Bamba ñun ñii tamit ñu xool parce que xoola Bamba est-ce que xam nga élection yu élection yi nii moo naroon a nekk ci élection yoo xam ne nii ba àdduna di am ba léegi élection yooyu musta am ci Sénégal est-ce que seetlu nga ko bii bu Macky Sall taxawee ne duma bokk ci pro du ma bokk ci élection yi mooy nekk c'est la première fois election am te président bi bokk ci. mais pour yow lan moo tax Idi di wëyal di doxal ba léegi. non dafa bëgg a riigu riigu fu mu toog lay wër loolu laa lay wax nii fu mu toog day niig niig fu mu toll nii foog mu jam si Macky Sall jam si Ousmane Sonko gis nga ñooñu bu ñu defee benn sog rek Idi day jog seen kaw. dafa gis nga li muy carte tey xoola la boo doon xeex ak ngóone ma dénoncé ni dem naa ci ngóone na ko moog bàmba nañ juboo ma dem naa ci bàmba wax ak moom xoola boo leen génnaatee ni tap am na ñoo xam ne dañ naan pour pourtant de wax ji sama tur da ciy kole jumboori la na leen jumboori jubóole na leen jooju moom mooy moom mooy pic bi muy sànni boo xam ne mun na fa taxaw pour defaraat partem pour war a mën a ñëw xool sénégalais yi nan lay def ba bokk fu mu doon nii xoola dafa intelligent nu muy def ba dugg loolu lay lijjanti nit ñi yaa ngi dégg mais dama lay wax ne la actuellement nii Idrissa Seck dafa war a diriger si Sénégal lu bëri wax dëgg yàlla am na xam-xam mais problème bi mooy fa ko waroon defee moo weesu wax dëgg yàlla jàmmi réew mi nag ci ñun ñii la nekk Bamba Bamba ñun ni ñuy indilee suñu bopp jàmmi réew mi ngóone mooy ñu fexee fexe ba nga xam ni am suñuy carte bindu bañ a toj bañ a yàq bañ a xasante bañ a saagante xoola ñi ñu tëj yëpp kan kan la kan ak kan ñoo jote ñu tëj leen wax ma ko ah Bamba ñi ñu tëj laa wax ndax danga see gis ko xam ne Ousmane Sonko la joteel ñu tëj ko déedéet danga nga see gis ko xam ne Macky la joteel ñu tëj ko déedéet ngoone laay joteel ba pare xam ni ngoone Macky Sall la la faral may saagawaale Macky Sall ci ngóone parce que da naan ngóone su ma bëggee lu ko naqari il faut ma saaga Macky Sall pour ngoone am lu ko naqari ngoone tamit nee na bu bëggee lu naqari jumboor il faut mu saaga ko mais ngoone ñun ñaar ñooy saagante mais ñee saagante wu ñu ngóone ngoone xoola ñu bokk xoola yow mën nga maa gis ma mën laa gis fu mu nii boo ne woon tey nga gis Macky Sall li nga ciy daj bala nga koo gis mais boo ne woon tey ma gis jumbóor yi xoola booy waaxu di ma gis mais ngoone man ak yow est-ce que mënuñu def jàmm mm-hmm. waxal rek ñun ñi nga xam ne amuñ ñoom ñoo am problème mu ceeb ñun ñoo am problème mu diwliñ mm-hmm. ñoo am problème mu fayum njàng bii nag lañuy xamee sénégalais yi gis nga bu ñu xullee ba paay yi ñu jël réew mi jox leen saye d'accord euh, ñii nañu nangu dogal nangu relève yaa ngi dégg président bi bu arbitré xoola bu mbër mbër yu garaaw a fi nekk na xoola bu président bi arbitré woon mbër mu ñuy wax Ousmane Sonko taxaw mbër mu ñuy wax Bougane taxaw mbër mu ñuy wax kii euh, naka euh, am na ku sant juuf nan la nan Diouf am na ku benn kandidaa Diouf la sant xaw ma nan Diouf wallahi am na xam-xam barke rasulullaahi am na xam-xam waaw dama ko seetaan Abdourahmane Diouf am na xam-xam mais léegi est-ce que du ñu boole mbër yooyu nga xam ne même génération la ñu bëre ñoom Balla Gaye boo leen dugalee ci ñoom booy ñaa ñoom Boy ñaa dañ leen ni daan mooget ah waaw ak ak mooget yaa ngi dégg waaw waaw ak déet mais mais xoolal ak lu ci mën a am lu ci xoolal lu ci lu ci mën a am wax dëgg yàlla na nañu may nañ may candidat yu bees yi ñu ñëw. baax na loolu laa bëgg quoi. dëgg yàlla ay wër di ndogu te yow buñ la joxee tàndarma doo ko mën a yëy da nga koy màcc <laughs> yaa ngi dégg. yooyu moom day xaw a doy waar quoi wax dëgg yàlla. non non non non xam nga nit kii njiit la njiit njiit pire la <laughs> mandargay njiit moo ne ci moom mais xam nga njiit boo ko yàkkamtee. day dox day dox jàmm rek ci ñaari kër non non mais xanaa am la man bii paase nii moom laa sànni mais ba mu demee dama naroon sax dama découragé. Hmm. non xool loolu rek yow ñu ba pare yow nee nga dangaa dem jàppale ji diw pour nangam nangam yaa du woon noonu damaa dem jàppale ji Macky Sall pour nangam ak nangam du noonu. Mhm. mais jàppale gi xanaa dafa jeex du continuer jàppale ko rek. est-ce du ci pare kon mi ngi dem ci Macky Sall di dem ci Sonko est-ce que tamit du dox tànk jàmm moo ko fa yóbbu. tànk jàmm waaw. ak ah. réew mi fi mu toll xëy na day dem waxtaan ak ñoom rek bu waxtaanee Macky Sall waxtaan ak Sonko parce que boo mënee ndogoo fii xëddee fii waaw <laughs> wax dëgg yàlla ci ñaar ñi nga xam ne duñu duñu laalante nga fii xëddee fii xëy na ah. tànk jàmm la en tout cas man gëwma ni opposition bi mun nañoo fexe ba dialogue am man ma ko xam nga lu tax ma ko uh-huh. yaa ngi dégg xoola dafa am ku yor caq te xamul woon ni caq la yor te dafa nekk ba dernière minute mu doog a xam ni moo yor caq gis nga tay ngoone boo jiitee ay nit. bamba il faut xoola bu ma la tay jii est xam nga Macky Sall mooy njiitu APR mooy njiitu Pastef mooy njiitu gëm sa bopp xam nga loolu xam nga ko wala xamoo ko. mu li kaay ma wax la ko xoola am na lu gëm sa bopp di def. bugaan def ko Macky waru ko cee topp parce que Macky Sall mooy président na nga jiite noonu ak sa mouvement bi Macky mooy seen njiit. yaa ngi dégg njiit loo mën a créer boo paree ci njiit li Macky jiite la kon mooy président gëm sa bopp. am na wala amul ma xoola ma wax la dara Macky Sall mooy président wu ah naka la tuddati euh, euh, nan la tuddati euh, Pastef mais boo boo xamul ni ñi yow yaa leen war a jiite. Mhm. yaa ngi dégg nga muñal leen loolu xam nga tey nit ki bu doon bu doon.